ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte lool di àndaate ak yéen fii ci suñu télévision Mouslih TV ci dars yi nga xamante ne ñu ngi koy ànd ak yéen tey muy suñu ñeenteelu dars ci darsu askar yi bii paase waxoon nañu lan mooy askar ndar keppoon ko tey nag ñu ngi ñëw ci yéen ci li nga xamante ne ci dund doomu aadama bi la bokk kenn mënu ko ci dindi muy lan muy bu bokk ci li nga xamante ne moom mooy dundam yàlla moo ñaale ko ak moom munu koo bàyyi su ko bàyyee mu def ko feebar wala mu def ko loo xamante ne du mujj fenn fudul fi nga xamante ne mooy ca fajkat ba loolu mooy lan mooy tey ñuy waxtaan ak yéen muy azkaaru nawm waaye dugalaale ci li nga xamante ne moom mooy adaamu nawm mooy lan mooy fàttali pour booy tëdd yi nga xamante ne moom moo la war ba keroog ngay nelaw boole ci aussi teggin yi nga xam ne moom nga sàmm war a sàmmwanteel sooy nelaw xam ngeen ne euh, jullit bi nelaw du loo xamante ne moom moo koy programmer wala du loo xamante ne daf koy neex mu def ko mu naqari ko mu bàyyi ko waaye lu muy soxla la mu ànd ak yaramam di ñëw surtout ci li nga xamante ne bokk ci wàllu wérgu yaramam muy nelaw xam ngeen ne borom bi tabaaraka wa taala dafa def nelaw muy noppalikukaay ndax mi ngi koy wax ci alquranul karim di wax ne wa huwa alladi jaala al-layla libaasa wa nawma subaata borom bi tabaaraka wa moom mooy ki nga xam ne moom moo ñu defal bëccëg bi ñu ciy dang-dangi di ci wut lu ñu am comme ni mu ko waxee ci sootul jumaa wa huwa alladi jaala layla libaasaw wan ma subaata xam ngeen ne borom bi tabaaraka wa taala dafa jël bëccëg bi jagle ko nit ñi pour wutukaayu wërsëg ak wutukaayu xéewal ak li nga xamante ne moom mooy li ñuy lijjanti ci bëccëg bi waaye mu ne war naw ma subataa mu def guddi bi nag li nga xamante ne muy nelaw mu def ko li nga xamante ne moom mooy pour noppalikukaay kon dañuy delluwaat rek ci li ñu waxoon ne nelaw pour noppal yaram la noppal xel noppal esprit ci lépp bépp fatigue boo xamante ne jànkoonte nga ak moom ci li nga xamante ne moom mooy ci bëccëg bi boo delloo ci fi nga xamante ne moom mooy am ma borom bi tabaaraka wa taala mi ngi ko fay leeral mi ngi wax ne wa jaalna la libaasa wa jaalna nawma subaata wan jaalna nahaara maasha mu ne damaa def euh, bëccëg bi mu nekk li nga xamante ne mooy li leen di euh, muur maanaam mu mel ne yére nga xamante ne da ngay génn di lijjanti ak di dang-dangi waaye guddi gi nag mu def ko li nga xamante ne moom mooy dalluwaay moom mooy féexlukaay kon bëri na ay aaya yoo xamante ne ñëw nañ di feddali ne guddi gi dañ ko war a noppaliku war koo nelaw waaye nag waxuñu ne dañuy nelaw guddi gi yëpp ndax am na jaamu yàlla yoo xamante ne mën nañ koo def ci guddi gi euh, mu lu mel ne xiyaamu layli lu mel ne ay askar ci guddi gi bari na lu bari loo xamante ne mën nañ ko cee def Euh, te mu doon jaamu yàlla ñu bañ a nelaw li nga xamante ne moom mooy guddi gi yëpp ndax soo xoolee borom bi tabaraka wa taala mi ngi soññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamante ne moom mooy ci wàllu julli guddi gi ak li nga xam ne moom mooy bañ a nelaw guddi gi yëpp ci sootu muzammil boo demee mi ngi wax ne inna rabbaka yaalamu annaka taquumu adna min sulusay layli wa nisfahu wa sulusahu wa taifatum min allazina maak nee na ko xam naa ne euh, guddi gi dangay jóg euh, kaar bi wala nga jóg ceer bi bokk ko ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo la ñoom ñoo ànd ak yow muy ñan muy saxaaba yi kon xam ngeen ne nelaw dafa nekk loo xamante ne dafa am ay teggin dafa am ay teggin ndax doo guddi du jot rek nga daal di wax ne man gëmmentu naa rek daal di dem nelawi mais dafa am ay teggin yoo xam ne dangay sàmm wante ak moom ci bëccëg bi ba ci guddi gi door a mën a dem nag tëdd am nelaw boo xam ne nelaw bu dal la am nelaw boo xam ne nelaw nelawu noppaliku la bari na ñoo xamante ne dañuy tëdd di nelaw bu ñu yeewoo dafay mel ne seen yaram day gën a metti bu ñu yeewoo dafay mel ne dañuy gën a sonn loolu mooy lan mooy dañoo ñàkk sàmm wante ak li nga xamante ne moom mooy euh, tegginu nelaw yi xam ngeen ne islaam bàyyiwul dara borom bi tabaaraka wa dafay wax ci alquranul karim mu ne maa naa fil kitaabi min shay bàyyiwuñu dara dara dara ci téere bi jàngale la lu jàngale na lu ne ba ci booy dox sax jàngale na nooy doxe booy nooy waxee nooy tëddee nooy xoole nooy sole yére amul lenn lenn loo xamante ne islaam bàyyi na ko kon jullit bi euh, bu sàgganee rek ci lay réere li nga xamante moom moo dox moom mooy li dox digganteem ak boroomam waaye borom bi tabaraka wa taala yónni na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay anam yu leer daan ñuy wax nag ne wa ma ataakumu rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu mu ne lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil na leen ko jël leen waaye lépp loo xam ne tere na leen ko bàyyi leen ko lu lu koy feddali luy euh, firndeel loolu mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa li ko yàlla di wax ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du waxee mukk ci li nga xamante ne moom mooy bànneexu bakkanam lu mu wax rekk dañ ko ko waxloo kon nag dafay yell ci ki nga xamante ne jullit la saa su nekk muy laaj boroom xam-xam ci lépp loo xam ne bëgg na koo def ba ci li nga xamante ne moom mooy wàllu nelaw parce que parce que bu fekkee ne yaa ngi nelaw di def ay euh, gént yoo xam ne gént yu doy waar la di euh, sonn boo yeewoo mu mel ne nelawoo woon te pourtant nelaw nga lu bari boo yeewoo yaram bi di metti nga yeewu bopp bi di metti nga yeewu nekk ci xaal boo xamante ni ne dafay mel ni yow nelawoo jàppal ne kon dafa am loo xamante ne ci sa digganteeg sa boroom bàyyi nga ko waaye nekkul loo xamante ne fotu kenn la mais yow sa bopp la parce que yow yaa fi bàyyi li nga xam ne moom mooy jàngale yonant bi sallallahu alayhi wa sallam dem di def leneen sooy tëdd nekk ci leneen doo yore njàpp doo jàng alxuraan Euh, amaana sax julli woo amaana yaa ngi woon di seetaan loo xamante ne wala ci loo xam ne euh, euh, ba ngay tëddi loolu daf laa toppaale dafa am benn jour benn waajoo xamante ne dafay toujours di gént rek ndox di gént rek ndox su mu dem wax ko ki nga xamante ne moom mooy borom benn borom xam-xam mu laaj ko ko mu ne ko xanaa booy tëdd dafa am looy def mu ne ko waa man chaque fois. bu may tëdd damay euh, lekk loo xamante ne dafay xaw a wex wala loo xamante ne dafay xaw tàng wa euh, maanaam xaw mel ni lu am kaani mu ne ko c'est normal parce que loolu nag euh, dafa mel ne ci bëccëg bi boo demee tëddi da ngay continuer activités yi nga xamante ne ne yaa ngi ko doon def ci bëccëg bi kon loolu dafay wane ne yenn saay nit gént loo xam ne daf koy jaaxal te pourtant warul mën a nekk parce que boo xoolee ci bëccëg bi li mu doon def wala li mu doon wax wala ci li mu nekkoon rek dafay xam ne kon moom lii ma gént nii dafay yeggali li nga xamante ne moom laa nekkee woon ci bëccëg bi kon euh, jullit bu nekk war naa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de bëccëg bi lii laa nekk ci lii laa nekk guddi bi damaa war a dem tëddi kon nag ci lan laa war a nekk bu may tëdd ak lan laa war a def ci li nga xamante ne moom mooy tëdd bi kon euh, euh, yell na ci jullit bu nekk incha allah ci beneen émission ñuy kontaan lool ci li nga xamante ne mooy topp bi ngeen ñuy topp di leen ci jaajëfal kon ñuy wax ne ñu ngi yamani fii ba ci beneen émission incha allah ñu indil leen li nga xamante ne moom moo ci des wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu